votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. Horoscope du jour. def. maa ngi fi àll. à toi l'antenne. jërëjëf comme ni ñu koy defee bés bu nekk tey di le 23 avril 2019 euh, seen horoscope ci kalamay Kocc ñu koy dooree ci bélier yi xam nga àll célibataire yi ñoom xamuñu fu ñuy teg seen tànk tey. non mais attends. xaaral rek. tey man dama célibataire waxuma la célibataire yi laa ah d' accord bu ma maanaam ah. pour bu seede di am yow nga fekkee ko ah d' accord ok euh, Mayte euh, laari laari laari ya yi ñoom tey xamuñu fu ñuy teg seen tànk ci côté wàllu vie sentimentale donc du coup ñoom ci seen jëm bopp nee nañ dañoo bugg a am liberté mais liberté boobu baaxul ci ñoom kon célibataire yi nga xam ne amaguñ daal moom nañ xool ni ñuy def laari sinon dina leen indil ay jafe-jafe ak ay gàllankoor. laari rek leen waaw Mayte ci wàllu santé mu ne dañu nekk ni ñi nga xam ne seen façon dundin nañ ko xool maanaam ci seen alimentation li ñuy lekk bu fekkee ne dañuy ñëw lu ñëw rek ñu lekk ko bu ñu demee ba jimmi jamono dinañ commencé di am ay problème ci wër gi yaram. naa loolu dañuy dina rëx daal te ñuy lekk dina rëx di lekk voilà. Euh, ci wàllu liggéey àll dafa wax ne effort yi nga xam ne def nga ko depuis début bi mi ngi commencé di porter seen fruit. la preuve gis nga ñi ngi commencé am aquaterra ñoom ji lii di ñëw ak yooyu donc effort yi nga xam ne ñu ngi koy def depuis le début nee na ñu ngi commencé di porter seen fruit ndànk-ndànk donc loolu dafa nekk li nga xam ne dañ lay féliciter di féliciter équipe bi yëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi tóoroo yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne euh, il faut léeg-léeg ngeen di xaw a bàyyi tuuti ah il faut waaw ah ngeen di xaw waaw ngeen di xaw a bàyyi tuuti parce que euh, couple bi daf ko soxla xam nga teng xam nga luy teng laaj xam nga maa ko xam xëcc ba mu teng ba mu teng baaxul loolu la olof yi xale yi naan léegi dama lay topp ba nga sës topp kay ba tax la ci miir bi la ñuy def <laughs> voilà léegi nee na nag tey tóoro yi surtout yu jigéen yi bu ñu topp yu góor yi ba ci mur léegi la tax nga taamu ci yu jigéen yi parce que moom la wax man waxuma ko léegi loolu dafa nekk loo euh, Seydina oui fii daal ku fi def lu ñu la war a toppee rek ñu topp la yeggali ñu topp la ok donc mu ne loolu dafa nekk li nga xam léegi nag neena na topp bi na nga bàyyi xel c distance bi ndax fond la mun nga mun nga xoox bëgg a retourner affaire yi la loolu la daf leen naan. endurance man nag damaa gëj a sport ba la nga topp ci watat gay damaa gëj a sport moo tax xam naa ndànk laa nar daf leen leen attention yéen tóoroo yu jigéen ñi daf leen attention course fond bi day métti ci yéen non non yéen laa wax yu jigéen ñi nañ def attention waaw baax na dégg nañ ko nag laa wàllu santé <clears throat> mu ne seen neer yi day metti xam nga aussi xalaat bu bëri mhm. stress topp waa ji waa ji ne di dem nga koy topp di gëstu loo xam ne amul da ngay non da ngay sonn. ñun bu ñu xëyee King FM fàtte lépp. bàyyi waaw mais boo mais boo wàccee yaa ngi lijjanti <laughs> dafal naa. doxalal doxalal ok ci wàllu santé mu ne wàllu travail euh, dafa nekk li nga xam ne euh, mu ne projet yi nga xam ne yaa ngeen ko am sur le plan dafa jot nag tey jii pour ngeen gën si taxaw pour mu mun a sotti. Mhm. soo ko defee rek dingeen di ngeen am réussite. Euh, waaw dina neex trop ñi nga xam ne ñoom ñooy jomo yi ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne bu ñu xoolee tuuti ba léegi mi ngi wax ak célibataire yi nee na nag na ngeen xaar rencontre yu bees. laaj ñaaw ah jeu mooy moom tey moom tarkal la mu ne nag nañuy moytu improviser seex yi waaw xam nga bëgg bëgg bu bëgg bëgg bu bëri bëgg da ngay improviser boo improviser rek yàq ko loolu mooy cat gi ci fin bi dégg nga euh, mu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy ci ci wàllu santé bi euh, laal yi mu ne na ngeen di naan ndox mu bëri ci bésu tey bi dafa nekk loo xam ne am na yenn feebar yu bëri yoo xam ne àll nit dina ko am ndox mu bëri boobu noonu nga xam ne da ngeen koy naan yéen jëmooy dina leen ci musal donc nañ ci bàyyi xel bu baax baax mu ne sur le plan professionnel da ngeen bugg a démissionner te ngeen ko bañ a def je mooy boo leen nee da ngeen démissionner gis ngeen nit balaa ngay bàyyi garab branche da ngay jàpp ci beneen branche mais yow jàppoo ci dara nga ne damay da ngay démissionner maanaam yaa ngi togg sa torox tàng. kon seex yi bu leen bàyyi. ah xaw ma ñan de yow seex yooyu ñu mu. jumeau ah. jumeau ok cancer yi. mu ne ñoom dañu nekk ni nga xam ne dañoo dem ba maar ci nekk célibataire xam nga célibataire bu ëpp bu baaxul bu yàgg da ngay sonn da feebar da ngay célibataire yow de gisoo sa bopp tey mais yow ana célibataire rek feebar non da ngay feebar célibataire feebar si da ngay feebar parce que ah. nit jigéen euh, nit ci boppam dafa war am yenn âge yoo xam ne dafa war a sëy li lay manqué bëri voilà donc mu ne maar di célibataire laali nag li attaque directe la nag da ngeen ñu sonn attaque léegi coono googu daf leen ñuy yóbbu ba seen xel xam nga ci lu muy nekk dugg ci ay site de rencontre yàlla nga faak daje koo xam ne lam lay woon ci photo beeg boo ko gisee du nekk benn donc mu ne na nga <laughs> def attention bu baax yaakaar bu tas yaakaar tas te loolu day yokk feebar ci wàllu santé mu ne yéen da ngeen nekk ni ñi nga xam ne soxla ngeen energie xam naa du ñàkk ci wàllu santé euh, may de fii ak ay fan di ñu wax voilà nit lan la war a jël pour mu gën a mën a yokk cawarte mu ne loolu daf si nekk euh, sur le plan professionnel al mu ne da nga nekk nit ñi nga xam ne da ngeen di exceller ci domaine yi nga xam ne da ngeen si nekk yàlla ubbil nañ ci buntu wërsëg ba li nga xam ne da ngeen ko bëgg mu mën a sotti lion yi ñoom dañu nekk ñi nga xam ne nee na journée tey bi daf leen may possibilité pour ngeen mën a prouver seen amour rawatina bu fekkee ki ngeen di bëgganteel dafa sori loin des loin des yeux loin du cœur ndeysaan loin du près du cœur nag yow non non loin des yeux. loin du cœur xam naa ah. baax lu may wax loin des yeux loin du cœur. près de l'esprit man de bëgguma loolu man damaa bëgg loin de yeux près du cœur. waaw mais fii fii fii picc waaye xel maa ngi suuf mais fii ah. bàyyi aaral bi da nga doxal. ok léegi mu ne ci biir loolu nekk na li nga xam ne euh, loin de yeux loin du cœur dafa nekk loo xam ne dina xaw a sobianto mais léegi nee na lion bu góor bi moom comme loin du cœur la te dafa loin tamit présent nee na na fexe nu mu ko xëccee. man lay visé. déedéet naanaam daal naqal bi dellu si baaxal dellu si wala moom mu ñëw rek. wala wala yaram wala yaram bi dellu si. <laughs> na ñëw rek nañ tànn benn. mu ne ci wàllu santé euh, Mayte dangay nekk loo xam ne mu ne na ngeen préserver seen santé par tous les moyens loolu dafay nekk li nga xam ne dina la mën a jàppale ba sa santé mën a euh, jàppandi euh, al professionnellement parlant mu ne tey dafay nekk li nga xam ne dafay am tournant ci seen carrière loolee di nekk li nga xam ne euh, luy baax lay doon euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne dañu nekk ni ñi nga xam ne euh, ñoom de fi mu ne nii dañuy wut ku leen nopp daagul fañ la bëggee mhm. léegi ñoom malheureusement vierge yi fa ñu daagu nee na bëggeewuñu leen fa donc loolu di nekk li nga xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu santé mu ne dafay nekk li nga xam ne Euh, ñoom seen corps dafa soxla ndox xam nga Aquaterra ñëw na. naan leen vierge yi ku fi vierge fii. man maa xam kan mooy vierge man ki may bëgg a teel vierge la. nee ko. waaw bi na ci naan. kon tonton Seydou na ma may benn pàcc ma yóbbaaleel ko ko. waaw nee ko. Mhm. ñoom seen wàllu santé dañu soxla ndox. xam nga l'eau est vitale nañ naan Aquaterra. Mhm. bu ñu ko defee rek di nga gis ne. Ah, incha ba pare Aquaterra bi li mu si xaw a jaaxal moom c'est plus de. kii de 500000 litres de. mais 600000 litres. yow da ngay oros kooku la da ngay dama doon wax pour gars yi naan si rek. donc ci wàllu travail bi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne dañu am benn ambiance bu yaatu sur le li nga xam ne ñu ngi ko bëgg wala mu nekk loo xam dañ koy yaakaar ñoom ak seen supérieurs yi dinañ leen ko defal. mu ne balance yi ñoom dañu nekk ñi nga xam ne tey journée bi daf leen may occasion vraiment pour ñu mun a wane seen bopp. laaj mhm. nit jigéen da ngay wane sa bopp. man balance laa. mu ne tey laaj yi waneel sa bopp waneel sa cas. wanal li nga mën bettu yow daal gis nga dogguma la yàlla bu la yàlla dog man xam nga ne man damaa am cas am cece cas chaque jour ma wane ko jarul ñuy xaar jour bi laari loolu sama yëf la Seydina laari laari ah. xam nga ba léegi rek dañuy yokk fas lu mu daw dolli ko donc du coup balance loolu la wax ci seen wàllu vie ci seen vie sentimentale ci wàllu santé bi mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne dañuy soxla ku leen jege wéet baaxul wéetaay wéetaay baaxul ñemewu ma ko sax dalay dalay feebar donc mu ne loolu nañ ci bàyyi xel ba sur le plan professionnel départ bu bees. maanaam nga nekkoon ci benn yoon. amoon benn genre frein bu ndaw mais départ at nee na départ boobu mooy départ bi nga xam ne boo si góorgóorloo jeex na. ci kaw dara du ko ñu dem ci jiit yi ñooy scorpion yi. ñoom nee na sur le plan euh, sentimental dañuy vivre en en en truc en couple mais ku jigéen ki dafa sob di gëstu di xool loo seet gis ko léegi dina gis nee na en fin de journée. coow day am digganteem ak ki muy bëgganteel yal ko takk nag parce que bu ko takkul boo moytu seen diggante dafay yàqu donc déjà waaw loolu moom kon gëstu di xool di lëxmbët lu leen nga xool ko loolu loolu baaxul il faut ngeen éviter ko euh, ci wàllu santé ba aussi li ngeen di éviter mooy ñàkk nelaw xam nga ñàkk nelaw feebar la mhm. donc nee na na ngeen éviter ñàkk nelaw parce que loolu dafay nekk li nga xam ne daf lay indil ay jafe-jafe ak ay gàllankoor mhm. ci wàllu professionnel yéen da nekk ni ñi nga xam ne négligence baaxul sur le plan professionnel il faut être méthodique aal xam nga gis nga ñuy tegee ci yoon nee na scorpion yi fi ñuy liggéey tamit nañ leen teg ci yoon. non yéen ngeen tegu si yoon ba pare. voilà waaw léegi nañ gën a yokk nag scorpion yi aussi nañ gën a yokk mu ne loolu dafay nekk li nga xam ne daf leen di jàppale sagittaire yi ñoom également ba léegi vice <laughs> eh waay sagittaire yi. dëgg la dama ay xam nga lu ma wax may ne. parce que parce que tey. xam nga dañoo lamboon lamb bu tara tara tar yàgg léegi nag fi mu ne nii dafa fenn fu ñuy dem tey ci benn raccord ah daa am tey fu ñuy dem ci benn raccord léegi nee na dañuy nekk ci seen 31 xam nga seen 31 maanaam mooy sañse ba matt géej sañse ba matt géej léegi nag ci biir loolu nee dañuy dem pour yaakaar ne ka ñuy bëggee ka ñuy seeti dina leen bëgg yal na leen bëgg ndax sonn nañ kii bu leen yàlla bu yaakaar bu yaakaar tase li des ci at bi pare lañ ci. <laughs> lañ naan xalam demoon na bay neex. bu mën a ko looloo leen nar a daal nii maa ngi koy gis. waay déet waay léegi nag mu ne nag ci biir loolu ñoom c'est ba dañoo bég ba dañoo nekk ci santé dañoo wër. dañoo agité agité donc normal professionnel moom faale wuñ ko sax fi mu ne nii <laughs> lijjanti wuñ ko professionnel lijjanti wuñ ko mais ñu ngi ci leneen. Eh, xam nga lamb bu yàgg nag baaxul. waaye doxalal waay waaw daal xarit sagittaire bu muy kekkantoo nii tey rek daagu fañ la nobee. ñoom amuñu fuñ la nobee buñ koy ah, daagu kon jàmm dalul ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi nag mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne euh, vraiment tey moom dañu am espoir rencontré ki gën a baax ci ñoom yàlla leen ko yàlla defal mais lenn aussi moom dafa mun a nekk peut-être ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne dañuy dem bay xaw a ennuyé wu c'est normal tu sais aussi des fois day may relation yoo xam ne il faut moom benn break relation bu def ay ay fukki at ay juróom-ñaari at. ay cinq ans si kuy takk doo doxaan juróomi at. kuy takk doo doo ko def. loolu sa point de vue la waxal horoscope bi. ok na ngeen xool rek ku ànd ak nit ñu def ay juróomi at. non non xoolal def juróomi at def juróom benn at ba fukki at nga xool ndax na la takk. eh Seydina man gis naa ku génn ak ni dix ans takk na ko. ku génn ak ni dix ans dans la vie il faut avoir de la patience. xoolal wuy ma man Seydina Seydina doxaan na juróom-ñetti at avant muy takk soxna bi. man maa ko wax. ok doxalal. mu ne ci wàllu liggéey bi ñoom. capi waaw sans <laughs> commentaire wàllu liggéey bi ñoom Capricorne yi mu ne dañuy nekk journée boo xam ne vraiment euh, journée bu baax a baax lay doon àll dañuy ñëw nag ci Verseau yi mooy signe bi avant buy mujj avant poisson yi. mu ne ñoom dañ nekk ñoo xam ne ci côté cœur vraiment déception baaxul ci ñoom parce que wax dëgg yàlla li seen xol bi tuutee ci des toq. xub moo des ci seen xol bi ndax déception yu bëri oh. donc kon tey jii verso yi dañ leen dimbale ba loolu noonu nga xam ne moom mooy déception yi ah, waaw voilà ñu mu bañ vraiment vraiment ba ñaanal naa leen ko ci wàllu santé par contre gis nga ba léegi feebar boobu sax moo dem ba jàpp leen ba ñoom seen jëm boobu li nga xam ne ñu ko bëgg parce que nee nañ ma fiyewu sax ci coup de fatigue xam nga fatigue ça peut être fatigue physique ou intellectuelle mm-hmm. ñaari fatigue yooyu ñoo am donc ñaari bu leen si dal rek du baax ci ñoom ci wàllu professionnel nag ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne ba ni ku nekk da nga am obligation de résultat booy liggéey dañ lay laaj ay résultat donc il faut nga def ko comme ni ñu koy laajee mayte ni ñu koy laajee àll ni ñu koy laajee euh, kii sauf que man comme aw ma fi patron kenn du ma laaj ah. voilà ah. donc bàyyi seex bàyyi seex dégg nga lu mu wax 11h rek mu ngi fi yéen am ngeen patron dañ leen di laaj dañ leen di laaj ay résultat man aw ma fi patron kenn du ma laaj léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy poisson yi am muy waaw mais lii la lii la tubaab bi naan insubordination pexem sot xam na pexem sotti woon moom sant yàlla <laughs> poisson yi la ñuy mujjee laal yi ñu ne ñoom dañu nekk ni ñu nga xam ne àll euh, vraiment tey seen humeur euh, ñu nekk ñoo xam ne dañuy charmé xam nga xeetu charmé yooyu noonu damay gis des fois ay nit bu leen seen jabaru solo yi woowee ci téléphone bu ñu ibbee rek dañuy sourire waaw di doser donc mu ne ñoom tey jii di ñot di waaw mu ne poisson yi tey nañ jaar ci yoon boobu bu ñu ko defee dañuy am li ñu bëgg mhm. ci wàllu santé ñoom dañu nekk ni nga xam ne problème gastrique ah euh, la kii Mayte ah Mayte problème gastrique dafa sonal jigéen ñi gis nga seen bas ventre ji suufu jumbax bi di métti tout le temps xam nga mun na nekk ay problème ay règles douloureuses wala nekk ay yenn complications bu mu ci mun nag nañ ci waxtaan nee na tey poissons yi ñoom feebar boobu dafa leen ñuy lëjal lool nañ ci bàyyi xel baax a baax par contre sur le plan professionnel ñi mewuñ jël responsabilité dinañ def njombe ci wàllu liggéeyukaay bi de <laughs> mais dañ koy séddoo ak àll déedéet kay maanaam daal ñoom duñ del leen ñoom kese. duñu assumer duñu assumer donc tey jii loolu mooy li nga xam ne ñoom sur le plan professionnel mooy liy gën a fës ci ñoom àll donc mu nekkoon seen horoscope bu tey di am yaakaar ni euh, surtout ci wàllu santé euh, euh, sentimentale célibataire yi gis nga ñii dañ nekk seen 31 ñi nekk seen truc donc wàllu wër-gu-yaram bi aussi gis nga li si feeñ ñëpp àll donc voilà voilà donc ku nekk na ci gis sa bopp et puis doxal li nga xam ne moom la aussi parce que loolu mooy but bi mhm. mooy lii la horoscope yo gëndi la teg la ci yoon ba ndëgg sërëf doo ci dugg ay histoire te man dara ma histoire voilà mais bon on sait waaw mais xam nga diggante bëccëg xam nga xam nga diggante bëccëg ak ngoon lu ne xej na si voilà donc eh, euh, mu nekkoon wax ji wax ji sax li koy couleur lan la anniversaire u démb bi ñu naroon waxtaanee tey war ko tëjee émission bi fi mu toll nii mooy cadeau gi ma leen sas ku ne ah, wax leen léegi léegi léegi mu leer dinañ la jox cadeau de oui ma ay tàndarma moom moom fi mu toll nii ci jamono ju ñu jëm ko nam Lisa na koor anniversaire bi cadeau bi wax leen ndax dina am wala du am na leer fii en direct de King FM 99 point de may nga ko ba pare mm. voilà donc euh, loolu moo nekkoon horoscope bu tey bi di leen jox dig daje di jox internet ak auditeurs yëpp